mbokk yi gannaaw bu ñu santee yàlla yàlla buur bi nga xam ne ku am xiwal moo la ko xiwalee lu doom aadama mën a am jiitoo ko moroomi doomu aadama am na ko sante boromam subhaanahu wa taala xam ne yàlla mooy ki nga xam ne moo ko jagle loolu moo ko maye loolu maa ngi seer ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg jaamu gi di jëriñ ñàkk jaamu gi di lore lu dul yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk te sàkkeewut ñu dara lu mooy nañ ko jaamu wa maa xalaqtul jinna wal ins illa li yaabuduun yàlla mu ne moom bindu doom aadama ak jinne lu ñu jaamu ko kon nañ leen jaamu suñ borom ba dee ñëwal ñu comme ni mu ko waxee woon sang bu tedd bi ne ko waabud rabbaka xatta yatiyaka al yaqin jaamul sa borom ba dee ñëwal la mbokk yi maa ngi seet na yonent la muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ngën ji yonent yàllaa koy yónni pour mu gindi xeet wi génnee leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer génne leen ci safara yóbbu leen ci aljana génne leen ci xir ci kër ak mbugal yóbbu leen ci kër ak xiwal tol mooy jantul firdawsil ala yenn yàlla boole ñoo yonent yàlla muhammad ëllëg yowmal qiyaama ci firdawsil ala mbokk yi gannaaw loolu maa ngi del si waat di dénk sama bopp maa ngi leen di dénk maa ngi fàttali sama bopp maa ngi leen di fàttali ragal yàlla ak topp yàlla nañ leen ragal yàlla nañ leen topp yàlla nañ leen jaamu yàlla ñu ne seetal ki wax nañ ragal yàlla lan la ci jëlee ki lay wax nañ jaamu ji yàlla lan la ci jëlee ki lay wax ne nañ dem liggéeyi am lan la ci jëlee ki lay wax nañ uuti xam-xam lan la ci jëlee lenn loo ci mën a fekk rek soo ko defee sa bopp nga ko defal waaye defal loo ko ki koy wax kon ñu ñëpp nañ leen ragal yàlla ñu dem jaamu ji yàlla ragal yàlla mooy lépp lu nit di def su baaxee xam nga su bonee xam nga lépp lu nit di def te bëgguloo kenn fekk la ca ragal ci yàlla xam nga ne loolu baaxul waaye lépp lu nit ki la def te bañuloo kenn fekk la ca te ku la ci fekk bañuloo mu nettali ko wallahi xam nga ne baax na kon su boobaa yow fexeel nga jéem a jaar ci loolu loolu mooy siraatul mustaqim yow yoon wu jëm mbokk yi ñu ñëpp nañ mbokk ñu xam ne weer wii ñu ne dee muy weeru caabaan wolof di ko wax weeru baraxlu weer la woo xam ne weer wu màgg la weer la woo xam ne weer wu am solo la ci ay xeetu jaamu yàlla yoo xam ne war nañ koo gën fagaru di ko taccoo lii nga xam ne mooy weer bi nga xam ne moo topp ci koom te mooy weeru koor yàlla de borom bi subhaanahu wa taala wax nañu ci alquranul karim ne mu ne weer yi li mu weer yi te mooy at li mu weer yi ci yàlla fukki weer la ak ñaar li mu weer yi ci yàlla mu ne fukki weer la ak ñaar mu ne ci téere bi nga xam ne mooy téere alquranul karim limal ñu ko ca bés bi nga xamee ne yàlla bind na asamaan bind na suufi juróom-ñaar mu ne mu tànn ca ñeenti weer yoo xam ne daf leen tuddee weeru orma ñeenti weeran ci yoo xam ne weeru orma la ko yàlla tuddee mooy sul qeedati sul mu muharam ak caabaan mi nga xam ne moom toppalante wut ak weer yooyu su ko defee yàlla borom bi subhanahu wa taala mu ne loolu mooy diine kon nañ ci jaamu yàlla fexe ñun ñëpp kenn ku nekk booy limal sa bopp ci ay at ak ay weer na fekk de la ngay lim mooy at mi passé de li ma ci jaamu yàlla weer yu passé de li ma ci jaamu yàlla semaine bi passé li ma ci jaamu yàlla bés bii ma nekk balaa jeex li ma ci nar a jaamu yàlla loolu mooy li nga xam ne doomu aadama war la loolu la war a fàttaliku cib dundam yàlla borom bi ne subhaanahu wa ci aaye bii nag ci la waxee na yéen dee leen tooñ yéen jullit ñi jullit du tooñ ndax tooñ dafay nekk ay tooñ yowmal qiyaama tooñ dafay indi ay lëndëm yowmal qiyaama te lëndëm koo xam ne sa kanam lëndëm na fi nga jëm doo ko mën a xam aaya bii nag ci la yàlla araamalee moom ci boppam tooñ dellu ci waxaat ne képp ku la tooñ te mën a koo jégal su la neexee mën ngaa fayu moo tax yàlla borom bi subhaanahu mu ne bu leen di tooñ ci weer yi le tooñ dee baaxu de waaye tooñ ci ñeenti weer yii ma limal la moo gën a bon bon ci tooñ ndax ñeenti weer yii nga xam ne lim nañ leen loo ci tooñ dañ koo ful moo tax yàlla mu ne kon falaa taslimu fiihinna anfusakum bu leen ci tooñ seen bopp wa qaatilul musrikiin xeex leen ak ñi nga xam ne ay yiifar lañ bëgg a jaar seen diggante ak seen diine na ngeen na ngeen xeex ak ñoom kaafatan kama yuqaatilukum kaafa comme ñoom ni ñu leen di xeexee xeexee leen ko ak ñoom ngeen xam ne seen diine na leen jaral seen bakkan yàlla borom bi subhanahu wa taala mu ne xam leen ne yàlla borom bi subhanahu wa taala amul kenn ku muy àndal lo may muttaqiin te lo mooy ñi ragal yàlla te ragal yàlla mooy bàyyi lu bon da def lu baax sa kéem lay kattan mbokki jullit yi nañ bokk ñu xam ne weer wii muy saabaan mooy weeru baraxlu weer la woo xam ne weer wu ama ama am solo la weer la woo xam ne ci la ñuy préparer suñu bopp ngir lan ñu tireen suñu bakkan ngir lan pour ñu ñëw pour tàccu lii nga xam ne mooy weeru koor bi nga xam ne mu ngi ñëw weeru barke la weeru tuub la weeru or la dañ ci daan or sang bu tedd bi daf ci daan or weeru saraxe la weer la woo xam ne bépp fu sa ngi xeetu jaamu yàlla dañ ko ciy baril ngir lan ñu mën a éwénal suñu bakkan balaa weeru koor bi ñëw di fàttali ne képp koo xam ne amoon nga boori weeru koor rawat na suñuy jigéen ñi nañ leen fàttali rawat na suñuy jabar yi nañ leen fàttali rawat na suñuy doom yi nañ leen fàttali ndax jullit ñi ñu bari tey am na suñu bari duñ jéem sax laaj seeni njaboot ma yow weeru koor wu daaw bi passé amoon nga ci borom ma bor boobu ndax fay nga koom suñu yoon dekkul ci loolu te wallahi suñu wareef wareef la ndax yàlla borom bi subhanahu wa taala moo ñu wax ne nañ bàyyi xel ne lii responsabilité la boo xam ne moo ko teg ci suñuy loos moo ne képp koo xam ne am nga njaboot sax njaboot dal waxtaan ak ñoom ca ngay leen di ñaax ci lislaam kon nañ fàttali suñu jabar yi nañ fàttali suñu doom yi nañ fàttali suñu jigéen ñi ndax lu ci gën a bari néew na jigéen ju oor weeru koor ba weeru koor wi dee te moom amul ci bor am na ci ñoo xam ne boo leen amee seen ñi may yàlla wala ñàkk xam lu ñu wax dañu naan bor newut suma diggante ak yàlla man bor laante ma suma diggante ak yàlla am na jigéen ñoo xam ne bu ñu amee biir ci biir weeru koor su ba nga xam ne weeru koor bi dee na xalaatuñ pour fay ko soo leen laajee mu ne yàllaa ma ko teg am na jigéen ñoo xam ne dañoo am dañoo bëgg sax di nampal ci weeru koor ngir ne bu bu may nampal am na ñu bari ñoo xam ne du ñu or bu ñuy nampal ndax dañuy wax ne jéggal nañ leen ko waaye du jégal ak jéggal na goo xam bu weeru koor bi te da danga war a fay bés yooyu kon nañ leen fàttali suñu njaboot moo tax ibnu amar amar la xays dafa waxoon mu ne mu ne tuuba li man aslaha nafsahu qabla ramadan nee na texe ñeexal na mbaax ñeexal na aljana ñeexal na njub ñeexal na ki nga xam ne préparé na boppam préparé na woon tegu ci yoonu siraatul mustaqim balaa weeru koor di ñëw kon ñu ñëpp nañ la fagaru ñu tuuba delluwaat ci yàlla borom bi subhanahu wa taala def ko ni ko saaba yi daan defee nga xam ne ñoom dañ daan ñaan yàlla boo xamee ne weeru koor joxe na gannaaw rek allahuma balex na ramadan allahuma balex na ramadan allahuma balex na ramadan mbokk yi gannaaw bu ñu santee yàlla beneen yoon julli ci sang-sang yi te lool mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne julli ci moom rek mën naa yóbbu nit aljana yàgg na ñuy nettali hadis bi muy wax ne da leen julli ci man rawatina nag bési aljuma te bari leen li ngeen ko aksiru alayya salaatan bari leen lu ngeen di julli ci man muhammad sallallahu alayhi wa sallam bési aljuma waxtu woo ko defee baax na waaye rawatina nag bési aljuma nag ndax bési aljuma mu ne dañ maa delloo suma rooxu dañ maa gaaral suma rooxu sa seen julli yi dañ ma koy gaaral te kenn ku nekk ku mën a doon muy Samba muy Demba muy Fatima bu jullee ci man danañ ma xamal ne Omar julli na ci yow Ibrahim julli na ci yow Fatima julli na ci yow kon da leen bari lu ngeen di julli ci man te ku ko def ci man benn yoon yàlla def ko ci yow téeméer ku def ci man téeméer yoon yàlla ko ci yow junne yoon ku julli ci man junne yoon mu ne kati fii sama mbag ak yow yowmal qiyaama ñooy buuxante dugg aljana loolu amul fenn foo koy amee lu moy salaatu ala nabi ci julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam kon julli leen ci yonte bi allahuma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa sallim mbokk yi nañ xam ne weer wi muy weeru chaabaan weer la woo xam ne weer wu am solo la weer la woo xam ne yeneen borom xam-xam ñu ngi ko tuddee sahrul qurra weeru jàngkat yi lan lay miir ci weeru jàngkat yi mooy jàngkati alquran yi ñoom dañ dem sax ba jël weer wi daldi leen ko moomale kon lenn ci borom ko dañu wax ne mun a charul qura naka na ku ñaan haj habib bun ibnu saabit moom bu weer wi taxawaan rek muy weer weer wii nga xam ne mooy saabaan nga xam ne mooy baraxlu daf daan wax naan pour jàng alquranul karim ku ñaan muali bun fudayl moom itamit rahimahullah yéen yàlla yërëm ko wax na ci lataiful maarif nee na saxaaba yi dee ak nit ñu baax ñi kaanu yaduuna allaha taala sittata ashurin an yuballiqahum yaani ramadan mu ne saxaaba yi ak nit ñu baax ñi salafu saalih dañ daan ñaan yàlla na yow yàlla gannaaw bu weeru koor deexee te ba juróom-benni weer yi ci tegu dal di wëy mu des juróom-benni weer ñoom booba lañ daan commencé tàllal seeni loxo yàlla ju ngi ñaan nga indil ñu weeru koor ndax ñoom xam nañ li nekk ci biir weeru koor moo tax boo demee ñi nga xam ne ñooy seet ci wàllu wér gu yaram sax yonent saa salaam waxoon ne suumu tasihu or leen ngeen wér ndeke am na yenn fas ngi feebar yoo xam ne sax borom bu takkoo woon or rek balaa balaa ñoo wax ay fan rek dana gis ak njëm kanam ci wér gu yaramam ndax sang bi du wax mukk loo xam ne du wut lu am te sang bi moo wax ne mun a or leen ngeen wér kon lu bari ci docteur yi wéral nañ ne ndekete moom biir bii fiixal ko ci lekk fiixal ko ci naan fiixal ko ci lépp lu ciy dugg loolu bokk na ci li may nit ki wér gu yaram kon lekk gu ëpp waxtu wu nekk lekk di teglante ay lekk te li ngay lekk du rees loolu lañ cey jëlee mooy ay feebar rek lay indil boromam subhaana lay indil borom mi nga xam ne moom moo koy def moo tax saaba yi mu ne ak salafu saalih daan ne ñaan gannaaw juróom-benn weer ñoom ñëpp waxtu wu nekk ak bër bu set dañuy tàll seen loxo yàlla yan na nga ñu indil weeru koor kon ñooñu uti nañoo ñi nga xam ne weeru koor bu demee ba nga xam ne des na ay weer tuuti nga dégg waaw weer bi bu dee ban mooy ñu ne ah nanga ah weeru koor kat mu ngee ñëw di te loolu wax ji yëpp mooy tiit ndax tiitaange la ciy jëlee kon ñun ñëpp dañ koo war a ñime ndax weeru koor mësta rey kenn te weeru koor mooy mooy jaamu yàlla goo xam ne jaamu yàlla naa fekk amul ci amul ci wàll wallahi koor naa fekk amul ci wàll moom ku nekk xam ne ne xiif mar kenn mënu ko xanaa kay jom rek moo koy def bu ko defee nag nga xam ne yàllaa ma ko sant ci fukki weer ak ñaar kon ma génnee ko asaka kon weer wi dinaa ko toppatoo te bu ñëwee tamit lépp lu ma ci war ci koor dinaa ko def moo tax mu ne kon weer la boo xam ne ñoom dañ daan ñaan ne yàlla may ñu ñu fekkee weer koor yàlla may ñu fekkee weeru koor yàlla indil ñu weer koor wala wala ma dañ leen daa wax ne Shaabaan te mooy weer wi nga xam ne mooy weeru weer wi nga xam ne moo topp ci Euh, nga xam ne bu deexee rek weer koor ñëw ñu ne weer la woo na ne weeru tamrin maanaam weer la woo xam ne weeru practice la doomu aadama daf ci war a practice boppam ngir lan mooy ne mu ngi practice donte wan tey nga or nga toog ay fan nga dellu noppalukaat oraat loolu daf lay fàttali ni ngay duggee ci weeru koor wi li ma mosoon ci biir saabaankat weeru koor wi ñëw ci noonu laay mel moo tax mu ne weeru practice la ngir mu ngir bul dugg ci weeru koor toog a toog rek ba ñu ne ëllëg la weeru nga commencé or bu boobaa dafay dal di métti waaye su fekkoon ne yaa ngi mos tuuti ci weer mu ne weeru koor bu ñëwee it daf wóor ne rek weer wi ñëw de ñaari fan yi passé ni ma or ni ma meloon noonu laay weer wi moo tax mu ne weer la boo xam ne soo ko ooree balaa weer koor di ñëw da ngay dugg ci weeru koor te da cee dugg duggin boo xam ne doo am benn coono mu ne ndax lu tax mooy miiñal ko ko sa jëmm miiñal ko ko sa bakkan mu ne su boobaa nag danga am ci biir lii koor googu noonu loo xam ne pay la goo xam ne laa too addu wala too saa kenn mënu koo lim te kenn du ko boole tamit ci yi nga xam ne moom la ñuy compte da nga ci am itamit xalaawatu siyaam li ñuy wax ne mooy maanaam bànneexu koor da ko ci jële waaye nag bëgg-bëggi koor it ko ci jëlee waaye da nga jëlee it maa ngi dugg ci koor te nag doole laa cay duggee ak cawartaandi laa cay duggee ndax yow xam nga fi ngay bàyyi ko kon allahuma balagna ramadan rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina asaba naar rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab